Euh, ngir euh, gisee ak euh, jëmm ju tedd ji di Serigne Mountakha Bassirou mbake ànd ak ku tedd kii nga xam ne mooy di Serigne Codé Seye borom xalima bi kii moom kenn dootu ko présenté ci nit ñi kenn dootu ko présenté ci réseaux sociaux yi kenn dootu ko présenté ci umma islamique bi ñëwoon ziare Serigne bi ziare Istimdad ñëwoon tan won ko. liggéey bu mag bu ñu liggéeyal Serigne Touba fee ca Seesen moom nag ab daara ju mag a mag a mag a yor ànd ak ay yu am ay taalibe yu macha ay taalibe yu yu bare bare bare bare macha allah di leen dundal di leen jàngal dëgg yàlla moom nag ci yoonu sëriñ bi lu sëriñ bi digle moom rek ci la nekk dafa tabaarakallah muy nit ka nga xam nit ku. nangu ñaan la nit ka nga xam ne jàngkati alxuraan la eh, yar la yarkat la ak eh, ka xam ne fa tabaarakallaahu ku jege eh, yàlla la jege yénte yàlla Muhammad jege Serigne Touba jege Serigne Mountakha moom nag fa tabaarakallaahu ñu ngi ñaan képp ku seetaan vidéo bi na nga jël numéro te maanaam jàppale daara ji daara ji nga xam ne maanaam yàlla rek la toogal yeneen rek lafa toogal Serigne Touba rek la toogal kon fa tabaarakallaahu kaddu yi maanaam fa tabaarakallaahu kaddu yi du du du du du bari waaye kaddu information rek wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin li sadinatan bi kullil janna min dari minan yaatal minna li sadinatan bi kullil janna min dari minan yaatal minna